billahi dombu tan mawlu ñaaw ci yoonam di ñam xarit yi ñu ngi leen di siyaar di leen nuyooti di leen siyaaxe bu baax a baax euh, gis ngeen tey nu ñu yeewoo asamaan si dafa nis ma daal di ànd ak moom daal di seet si ñi nga xam ne ñoo di électrique mécanique seen bi émission yoon ndaw bu ñu nee yoonu ndaw di émission boo xam ne ndaw ñee ko tax a jug waaye day yëngu ci li nga xam ne moo di métier ñeen ci ànd ak di DJ la le plus jeune jigi de Kaolack émission bi nag képp kii ndaw ci nga bokk képp koo xam ne da ngay dóor waar di ko def jom fulla ak fayda yaa ngi ci biir ma ànd ceeg sama caméraman bi nga xam ne ñaawul benn yoon Serigne Saliou émission bi nag ni lay demee saa su nekk waaye dañuy nuyu kilifa diine kilifa aada yi nga xam ne ñoo ngànk réew mi du nuyu suñu mbokk internet yi ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel fu ñu mën di nekk

Euh, bëgg nañu xam ci ban liggéey ngay yëngu. Mm, maa ngi yëngu si mécanique. mécanique mm. euh, tey bu ñu ne mécanique man mi nga xam ne xawma mécanique. Mm. naka laa ko mën a xamee liggéey bi ci lan lay yëngu dafa nekk buuxum oto dawal oto. wala li nga xam ne mooy damay tolier oto. moo xam damay defar fiir ci lan ngeen yëngu. maanaam comme fil électromécanique la ñuy def maanaam fiil da ciy bokk mécanique da ciy bokk parce que mécanique bi ak courant moo ànd. lépp si benn benn côté bi la quoi lépp benn bi la daal. Euh, ban année nga dugg ci li nga xam ne moo di ci métier mi. métier maa ngi dugg fin 2003. fin 2003 euh, boobu ba léegi ban te nga gis ci biir métier mi ak ban wàññi waaw ah, yow métier bi nag dëgg yàlla gis naa si avancement bu baax parce que su ma xoolee li noonu liggéey bu njëkk ak tey ça fait deux parce que dëgg yàlla gis naa maa ngi gis sama bopp daal fort bu baax boo xamante ne aw ma ko woon démb. te maa si gis sama bopp dëgg yàlla maa ngi gérer samay samay problème naa ah tey bu ñu gisee métier yi nu mu demee yenn saa yi nga nekk ci di ci teg ay jafe-jafe yu métier yan jafe-jafe ngeen dund ci métier mi. Hmm, métier bi moo mënul ñàkk parce que yenn saa yi nga am client yoo xamante ne ni support leen du yomb yenn saa yi nga am apprenti yoo xamante ne comme booy ñu ngi taxaw mooy loolu parce que nit ku nekk jikkoom te xam nga affaire de jiite dafa métti mm. tey lii lii jaar yoon suba lu jaar yoon te lu ñëw sa kaw lay dal daal bëri na ay problème daal. Euh, ci boo yooyu nga wax ci laay teg sama loxo euh, suñu gisee tey da ngay dem ci garage gis fa ku nekk indi jikkoom kii nekk xale bu lëj kii nekk koo xam ne lu mu gis du ko fa jaarale yoon tey ndaw yooyu nag ngeen def ba ràññee ba ma leen a teg ci yoon. Hmm, am nga adama moom boo yàggee nekk si garage yaroo ci da ngay dem ba yow lépp lu nekk si garage mën la ëmb soo rek façon nit ku nekk ma ngay mën a dund ak moom parce que boo xoolee 2003 ba léegi yàgg na téléphone man yàgg naa si garage parce que garage jaaruma si jaar naa si garage si garage man tamit comme ni ñu def ni ba damay dem ba dama si am maîtrise bu nek suma la xolé rek xamna naa li nekk yow so gëmé job xamna boko gëmul xamna euh damay dégg faral di dégg ñu naan ñi jàngee ci école yi ñoy gëna am yar ñi nga xamné dañuy ci mbéd mi wala yenn liggéey kay yi nga xamné ci tali yi lañuy nekk mba ci koñ yi mm. yow loolu anan ka nga ci sànni. non loolu mom man gëmuma loolu nit mom yar yar la rek. ni nga yaroo sa gàll boo génnee noonu nga continuer école bi dëgg la mën ngaa génne école bi ñëw gën a réew ñëpp loolu lu si dara si yar bi la rek. Euh, tey su ñu demee ci li nga xam ne moo di nawet dañuy gis oto yu bëri dañuy am problème tey oto yooyu na ngeen def ba mu nawet bi yëpp ngeen muccu ci ak euh, danger yi nga xam ne nekk na ci ak euh, feebar yi mu la mën a jox loolu yëpp terewul da ngeen teg liggéey bi def ko nu mu waree. Mm-hmm. mais comme yooyu da ngay bàyyi sa que liggéeyu nawet chaque jour da ngay moo di suuf. wala boo boo naree tëdd suuf da ngay isolé woon kiri oto ba mu jóg nga xamante daal yow sa yaram chaque jour da koy sàmm waaw affaire bi noonu la rek ah, dañu gis tamit yenn kuréel yu bëri hmm. moo xam ni teer bi wala ude bi ñoom ñëpp dañuy am benn mouvement boo xam ne euh, mouvement bi ci la ñuy waxtaan ñoom seen biir hmm. mouvement boobu noonu ci la ñuy dëmbalante kii bi takk jabar kii bu amee problème ordonnance est-ce que loolu am na ci yéen non vraiment man moom bokkuma si yooyu fii gisuma ko tamit ba tey gisoo leen tamit état di leen jàppale yéen non man gisuma vraiment Euh, ci ban quartier la ñu nekk sans deux. kan moy maire bi. maire bi non man sox xam ne mustapha mbeng nest pas. ah euh, lan nga mën xam réaliser bo xam réaliser na fi ni fi fii yow xam nga bo xam yow xam nga ko. man de gisuma musoko gis musoko deg est-ce que tay mu ngi leni nemeku non musuma gis lool musoko gis am nga jabar wala amo jabar. non non yoro musoko yoro soxna am nga gel. non non amo gel euh, tay ban projet nga tek sa kanam en tant que euh, kilifa tay ban projet nga tek sa kanam ci walu bop yaangi wacc wala wajago amna koy gis diko ko pes tànk lay pest match wala comme non instant yi mbéjaguma <laughs> oui man nañu wax rek non mbéjaguma ken tamit ah waaye yaang ci projet bi wa ma ci projet mo euh yow rek sa keur la wala da nga jógee benen dekk ñew fi non man Thiès la jógee ñew fi kess nga jógee ñew fi da nga loué non non loué mo sama samay gàlli la nek fi tay euh nak ngay dundeek ñom waaw ñoom dama dëgg yàlla macha allah mom 2003 ba léegi maa ñoom ñoo dëkk. Hmm. comme ni ma mel sama gàll Thiès naa mel fii. Hmm. amul benn problème bi vraiment. léegi sa papa ak sa yaay Thiès lañ nekk. Hmm. liggéey bi dinay dox nu mu waree ak euh, jamonoy sedd lay dox wala jamonoy tàngoor. non liggéey moom affaire bi comme tey mu neex la suba na naqari mais dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax parce que saa yeewoo toogoo rek santal. saa yu yeewoo yaa ngi liggéey kon loolu sant la quoi. tey liggéey bi bu doxee normal journée bi ñaata ngeen di am. non bu doxee normal moom mënoo calculer journée bu doxee moom. macha allah euh, tey naka ngay def ba xam ne euh, da nga mën a yónnee say parent dund ci ak dund dakaaru nu mu méttee. waaw mais xam nga yónnee parents yi moom loolu si la bokk par force nga am nga ñàkk danga koy def loolu méttiwul daal pour man loo am rek séddoo ko ak ñoom ah, li nga mën a denc denc ko. yow da ngay julli. man waaw. man nga maa noonu booy laay bañ a ree ma quoi. Ah, da ngay bañ booy ree la te booy naan sa waay est-ce que mokkal loolu dara. <laughs> léegi euh, suñu suñu gisee tey xale yu bari dañuy toog seen kër yi ñii jël wàllum pari foot ñii jël euh, wàllum caaxaan comme ça damay gis benn jigéen ci koñ bi am na alal ma dem daal di ànd ak moom ku jigéen ki di ma dundal am ci ñoo xam ne day dem ba ñu bàyyi seen kër papa ak seen yaay dem dëkkal ndaw si mbaa ñu def mariage dëgg bal tey ndaw boobu noonu tey ana naka koy wax en tant que ndaw nga toog di liggéey boole jom ak fula ak fayda bañ ku la yàpp lan ngay wax ndaw boobu noonu. ndaw boobu man de li ma koy waxee mooy mu bàyyi xelam parce que bu xoolee fin carrière am loolu yëpp lu wéy parce que tey loolu dund daal parce lu mu neex ne tey tey day naqariwaat suba mu bàyyiwaat xelam bu baax laa koy wax. Euh, tey ndaw mi nga xam ne mu ngi ci liggéey bi soo tegee fukki dërëm mu ne ko coppet dem yóbbu soo tegee benn euh, ruwu oto wala benn fil mu ne ko tafit yóbbu ndaw moom dafa nekk ne dafa soxla xaalis wala dafa am jafe-jafe. wala dafa nekk jikko boo xam ne ci moom la nekk. Hmm, day am quoi am nga jël moom dañ koy tàmm am na ñu ndaw yoo xamante ne seen bëgg-bëgg moo bëri yow muy jool ak ñoom sax ñoom ñoo la ëpp soxla tamit day am xam nag tey naka dundee ci garage yi parce que am na garage yu bëri dañuy jël gardien hmm. euh, naka ngeen di dundee yéen ak waa euh, garage yi comme dend kër. Hmm. duñ bëgg huile bi dem fa. am nga coow li bari ñi génn comme dundu dakaar ku ci nekk bopp sa bopp ngay demee jafe-jafe yooyu nag ngeen koy jànko toog yéen askan bi yéen ak euh, ñi nga xam ne mooy borom oto hmm. ah yéen ak ñi nga xam ne ñoo leen di gardeel hmm, xam nga loolu yëpp maslaa la rek parce que boo xoolee si borom kër yi chaque jour yaa leen di déranger yaa ngi seen miir mais chaque jour yow mi nga xamante yaa fi nekk fi nga hmm. vraiment koñ moom macha allah quoi parce que ñun ñëpp presque benn la waaw ah, ku la may jabar di nga jël man waaw su ma ko wóoloo kay jël. soo ko wóoloo jël. Mm-hmm. yan yan qualité ngay xaar ngir takk jabar. man non xaaruma dara instant yi moom xanaa kay damaa dajee wala ki ma war a takk rek. Ah. Euh, est-ce que pare nga pour tukki. waaw pare naa moom. bëgg nga tukki. lan moo tax ndawu Sénégal yu bari bu ñu yoree métier. dañuy bëgg dem tukki bàyyi fi métier mi. non bàyyi moom métier man fu ma mën di taxaw tey bu soobee yàlla sama métier lay présenté fu ma mën di taxaw nag si adduna bi. kan mooy président Sénégal. <laughs> Macky Sall. am nga 40 ah. est-ce que mus nga dem élection nga dem voter ci euh ci jamono ji ñu tollu ni suñu gisee réew mi fu mu toll ci mitaay ci bép côté est-ce que yow gis nga ko xamné war nga ko mëna a sa cadeau sama béni nii. waaw si ñoom. Hmm. Sénégal fi waaw ah dinaa woote de bañ ma perte mais man amatuma confiance ci kenn. amatuma confiance ci ken non non Macky Sall lan nga gis lu mu def ci dëkk bi lo xamné ne neex na la wala neexu la. man. man moom vraiment ginnaaw ñu ngi am jàmm daal tane na mais man kenn daal. kan mooy sa jour. ban plat ngay lekk. <laughs> man maafe. maafe <laughs> daa mel ni ko <laughs> jawar bi jaay dégg laa la war a wutal de ndax dina ko yittewoo euh, euh, mbër yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal arène bi nga xam ne suñu moomin la mm. euh, kan moo ci sa mbër. man Modou Lo. mooy sa mbër. tey bëgg naa xam tamit ndaw mi nga xam ne. yéen a ngi ko yor papaam ñëw dénk la ko mu dëng lool naka ngeen di def ba teg ko ci yoon parce que dafa jafe ci jamono jii nii ndaw parce que ndaw ñëpp yàlla da leen defal li nga xam ne moo di cókkal xam nga baatu cókkal dafa nekk ci ndaw ñi tey ndaw moom noonu na ngeen ngi def ba jubbantiku. waaw di jéem di wax rek affaire moom mënoo dóor kenn mais chaque jour. non dégg naa yéen yéen a dàq dóor yi. non non dóor moom amatul. Ah. nga mën waxal defal nii defal nii bu naree sonal ko demal nii kese mais dóor moom noonu. Hmm. Euh, tey ñaata jour na ngeen yàq ci añ bi reer bi ndekki bi. non ñu ko calculer moom. tey boo amoon loo xam ne bëgg nga ko soññu benn ndaw wala benn papa wala benn yaay nga bëgg ko ko wax ngir mu bàyyi ci xel ci àdduna loo koy wax. comme nan. moo xam danga nga koy yedd pour doo doomam dem liggéey wala moom papa ji ju toog ci kër gi jàpp doomam wala jabaram ñuy dem di liggéey di ko jox ban conseil nga koy jox ngir mu xam ne moom sax warta toog. waaw mais papa tamit boo demee ba am say doom yi la mën a liggéeyal tamit loolu sens neex na tamit daal sa papa nga toog sa doom di liggéey nga ñëw lekk loolu tamit xam nga dafa bokk si ñun daal waaw. Euh, bu doon may Macky Sall wala may maire bi nga toog ak man nii may la loo gën a bëgg ci àdduna tey boo ma ko waxee dama la koy defal loo koy wax. pour ndaw ñëpp liggéeyal. ñun euh, am na ñu bëri ñu ngi toog fi taxawaay wala di am ñu ngi seen i

waaw su boobaa dinaa jéem a xool daal comme si man li may yëngu si laa ko mën a tegal su boobaa daal dinaa xool ni ma ko tracé ba mu tegu soobee yàlla. amul benn liggéey boo yëngu ci budul bii kese wala am na leneen lu nekk ci suuf. non man moom su rombee comme ay man si jur laa yaroo tamit comme sama maam ay sàmm lañ sama papa ay sàmm lañ à bi daal si jur laa mën a yëngu élève mhm. Euh, ci jur googu dañ ci ñëw parce que boo demee ci jamono ji mécanique yeeg moo xam damay toog suma buntu kër foo romb dañuy yor xar gisoo xar bi ma gis sama kanam sànq ba tey mu naa ma kañ nga may jox wàll xam naa daa bëgg a wax xam naa li mu bëgg a wax moom ñor na ko mu ngi lay xool rek moytu leen nag ngeen dajee en tout cas dama la koy teel a waxal rek tey euh, dañuy gis ci noonu da ngeen yor xar wala juleen jur mala xaj leneen ak leneen waaye da leen miin topp leen taq leen loolu nag ngeen di def ba mu dugg ci moom. waaw xam nga defal yëpp defal jur moo gën a neex parce que moom léeg laa gis looy defal lu nit tey mën nga defal ko àdduna ak lu si biir ngeen xuloo fi léegi mun la mosoo ma defal mais ñii duñ fa ay mala lañ mais duñ fàtte daal. koo gis ñu topp ko rek xamal ne sonal leen. ndeysaan fekk bu la nga dóor ko bu rut na ñaari yoon toppaat. Mm-hmm. waaw noonu kese la demee léegi dama lay jox euh, quatre tour dëkk wala ñetti tour dëkk nga tànn ci benn su ma la joxoon jàmm gën. ngor kër sutura ban nga ci jël jàmm gën ngor kër sutura wala xaar yàlla tamit ñu boole ko ci xaar yàlla ah, xaar yàlla ah. <laughs> baax na euh, ñi nga xam ne ñu bàyyi xel ci internet bi ñoom dinañu joxe seen wàll waaye euh, bëgg naa ñu laaj lal ci benn point bu am solo tey boo gisee ndaw ñi ni ñuy demee bitim réew te damay dégg ci maam ñi ñu ne sa ndaw dangay daw topp ko sa mag mu fekk si la tey ndaw ñëpp dañoo jëm ne bu ñu jëmul bitim réew du tekki tey donc Sénégal mën nañ ne demeewul noonu waaye yow yaa ngi toog fii di sutura di am ñu lay woo di am ci yow yaakaar tey ndaw moomu noonu jëmu joonu gaal wala ndaw mi am jabar ba pare ba ko fi dem wala am doom ba pare ba ko fi dem moo xam ki nga xam dafa des ci géej moo xam ki nga xam ne dafa dem réew ma wala ndaw mi wàcc tey lan nga ko war a mën a ñaax wala nga dolli ko ko ba mu xam ne moom. dafa bokk ci développement réew mi. Hmm. waaw wax dëgg yàlla tukki mënul ñàkk parce que bëgg a tekki la rek mais tamit booy dem xool si si dem bu wóor parce tamit jël gaal jëm dem si géej gi wóoru man daal su fekkoon man la ba ñu ma tukki de mais du ma dem si gaal man moom dama koy wax sama suuf waaw ba ñu ma ko nag mais jaralu ma tamit bàyyi sama job bi bàyyi samay parents jël naan damay dugg si gaal man dama ko def. Hmm. waaw mais nag ñëpp yemuñu am na ñoo xam ne faale wuñu loolu mais man duma ko def. waaw mais bëgg naa tukki mais su lu leer nañ laa bëgg a dem. Hmm. Euh, bëgg naa ci wax ñu wax ci tamit euh, ci wàllu set mi ci garage bi parce que tey am na yenn garage yoo xam ne boo fa demee dañuy tilim garage bi day tilim morceaux yi fii mbala di fii waaye garage bi man ba ma ñëwee dama kontaan macha allah tey te set dafa bokk ci développement wu réew dafa bokk cim réew ndax ay mbuus ay yëre day yàqu lu bëri tey ma gis seen garage bi muy set lii di royukaay ci garage yëpp lii liggéey set gi nii naka ngeen ko defee ba mu mën a mucc ay dafa nekk bu ngeen xëy ngeen wax booy ñu liggéey ko wala dafa nekk ci seen deret yéen mm, parce que set moom si nit nekk te garage bi ñun bëgguñu sax ngay sol sax booy sax ba solee télé bi tilim ñun la parce que si liggéey moo avancé instant bi taq rib ay tilim yi tilim métti yooyu jëru ko yëre yi yombul kon jërul daal pour man yenn tilim yi jëru ko mm. vraiment te garage bi saa yu booy yeew dañ koy nettoyé nice mm-hmm. ay ci mu ngi noonu gannaaw kaf ak ree waaye wër lay euh, da ngeen di wéy di partager li nga xam ne moo di suñu vidéo di wéy di nee naa leen ak Kifne TV dara du leen raw mbaa ngeen ci suñu pass bi nga xam ne moo di YouTube Facebook Instagram TikTok mbaa ngeen dem ci suñu site www.kifnetv.sn du ñu yem foofu ba tey dañuy def benn waxtaan bu ndaw ci liggéey bi gannaaw kaf daal di partager li nga xam ne moo nekk suñu xol bu ngeen gisee ni muy waxee ngeen xam ne ci xolam la ko tubbee. mag ñi dañ daan wax naan booy dégg am ku lay déglu kay wax xam na muy waxee ña koy jël di ko séddale da leen di neex kon jàpp naa ne Serigne Saliou tey sama caméraman bi dina ko neex waaye man tamit dina ma neex may jàkkaarloog moom kon gars yi nay neex euh, dañuy ñëw ci liggéey bi daal di ci teg tànk yenn saa yi du ngeen teg nga am koo xam ne day ñëw benn borom xaalis ndax dañuy wax ne dama dégg ci mag ñi ñu ne nit bu amee alal day gaaw a alak ñu ne nit bu amee sutura kum gis da koy sàng ñu ne nit bi wéttali ko boppam kum gis day yaakaar ne moom ak ñoom ñaar benn leen ñu ne nit koo xam ne day doylu kum gis rek la mu yor da ko koy yéene ba pare doyloo lu ko yàlla may tey ñu gis métier mi ku ne ngeen di dajeek ku ne yenn saa yi sax ab ndaw ñëw proposé la nga defar ko oto ba pare ngeen jaari ndaari Euh, tey jafe-jafe yooyu noonu bu ñëwee nag ngeen di def ba génn ci parce que tamit di nga laal moteuru jàmbur mu yàqu mbaa oto jàmbur mu yàqu mu yóbbu la ci police tey naka ngeen di jafe euh, dundeek jafe-jafe yooyu. waaw yooyu moom problème yooyu moom mënul ñàkk si job bi mais chaque jour yow ba engagé xoolal ni ngay job bi affaire moom dëggu la rek xool nga ko lii mën na baax mën na baax mënul baax mënul baax kenn du la sonal man de noonu laay joobee problème nag du ma du ma ko am mënul ñàkk. mais chaque jour maa ngi jël samay matuwaay daal di jéem a bàyyi sama xel bu baax. Mhm. parce que job bi néew façon nit nekk ngay dajal. Mhm. mais moytu daal dañuy moytu rek yàlla moo ñu suturaal tamit. Mhm. ay ci mu ngi noonu seen biir émission euh, yoonu ndaw ba tey ngi nekk ci ak DJ la le king fils de Mbossé Kumba jigéen fiir te Kaolack waay Kaolack waas euh, doomu Mbossé bi nga xam ne nee naa la nee na faax ci biir Ndakaaru Njaay jël Jóob waaye du ñu ci wéy parce que ba tey dañuy ànd ak ndaw ñi nga xam ne dañoo bëgg liggéey ndaw ñi nga xam ne euh, dara lu dul seen réew ñoru leen parce que bu ñu ne yoonu ndaw xam ne ndaw ñee ko moom yoon bi nag ki mën dox day dox ki mën daw daw ki mën raam raam waaye ki mën jug jug ki man tàccu tàccu nee naa la Sénégal gàl gi yow téyir bi yow maçon bi yow uude bi yow mi nga xam ne sax da xiiri xëy di compter pot lampe fa nga jàpp boo bàyyee rek day du baax day wenk waaye boo bàyyiwul day jëm ca kanam euh, bëgg naa ñu ñëw comme tey maak yow ñu bokk garage instant yi dama bëgg ñu jàppee ko waxtaan. man mi liggéey ci garage bi ma jàpp ne sama patron li mu may jox ci xelam rek laa war a yor war naa mën a gëm ne sama patron damay li mu def dama koy ful mm-hmm. war naa mën a gëm ne man mécanique yëpp. dinaa leen jàppale wala man taalibe yi comme tamit man jàttaay jaar naa taalibe ma ne taalibe yi dinaa fexe jëlee leen ci mbedd mi tey su ma ne la woon man de dama bëgg ñu créer benn mouvement mécanique yëpp seen xaalis di fa dugg chaque weer su ñu gisee chaque at ñu jël xaalis boobu dem tabaxal benn mécanique kër dinañu dimbali ci niw di doole suñu gisee ne benn ndaw bi nii day jéem te du mënul dem am na problème mu garage ñu dem ubbil ko garage su ñu gisee ni kii këram moo koy doxal mënu koo doxal papaam sonn yaayam sonn ñu takk jabar jox ko parce que loolu dana waral ndaw mi xam li ko war parce que man ak yow la bu ñu ne yoonu ndaw wala ñu ne réew mi ñu réew mi mën ak yow la mënoo dem mënumaa dem kon ñun ñaar bu ñu boolee lu ñu am dinañu dem tey su ma ñëwoon tegal la loolu noonu yow laka nga ciy jàppee ci projet boobu ba mu dem wala lan nga ciy wax ba projet boobu mu dem te loolu war a mën a ne la ni koy téer def parce que téer am nañ asos am nañ asos même ñi nga xam ne ñooy uude yi am nañ association kon yéen jot na ngeen am benn association mën ngeen dem ba créer benn école seen doom yi di fa jànge duñ fay mën ngeen dem ba état bi sax day ñëw gën leen jox gëdd parce que yéen ñu jar jàppale ngeen ndax da ngeen jël ndaw mu dara newul ci moom daf dara ci ba di ko borom dara ji dar kon ñu jara a mën xel ngeen te loolu dina tax bu boobaa ñu xam ne yéen am ngeen technique bu nekk ci yéen mm-hmm. parce que da ngeen a war di créer aman ah mm-hmm. man de damay liggéey jaay xar waa xar mi nan laay def ba xar mi moom bu juree xar beneen xar mi balaa mooy judd wala balaa mooy toll ni ma mën a am beneen xar wala ma man koo jaay mm-hmm. man tamit noonu laa war a mën a aman ah war naa mën a am oto wala oto bii nii su ma ko amee balaa mooy ñëw war naa cee mën a jaay naka ngeen di def ak yooyu noonu parce que yoon la ngeen tamit euh, créer seen yëfu bopp tey projet bii ma la tegal tey lan nga ma ci wax wala nga ci yokk wala nga ci ñax say morom. waaw li nga wax ni moom lu naaj la parce que noonu la ñu war a dundee tamit mais jàppalante bi daal dafa des quoi parce que ñun tey da nga nekk nit sa ngeen di job comme si biir job bi nii quoi yow soo gisee kii may avancé tuuti nga ne kii am na lii waruma am lii moom lu tax muy am waruma am te yàlla moo bind te yemaliwu. bu mhm. fekkoon tey boo amee ma ñëw jàppale la comprendre ma jàpp si quoi pour mu avance mais déedéet. da am dara ma ñëw naa ma non kii warul am lii te ma nekk mm. loolu moo ñu xaw a tardel tuuti te xam nga xol yi suñ ko boole mu nekk benn rek ñun ñëpp dañuy dem mm. loolu moo ñu xaw a tardel tuuti tamit mm. waaw euh, euh, li nga wax noonu comme soxorante bi dañ ciy teg loxo parce que tey dañuy dend place mbaa ñu bokk kër ngay doxal sa liggéey ni mu waree ma daal dina du fa dal tey est-ce que mos nga euh, jafa jànkoonteeg jafe-jafe yooyu noonu walla mu nga xëy ñëw sa place fekk ñu dafa nen mbaa ñu sampal la fa biteel mbaa ñu bind sa teg ko fa non vraiment yoy moom musuma seen daal même bu amé tay man gisuma ko te mm. yooyu man fa bayu ko xel même bu dee ñew lu lekk lu nga xamne dama ko ragal hein eh, nit ñi dal yemuñu dal te lolu mo ñu xawa sonu ci lu bëre bëre da mm. ngay nekk yow do dem duma dem motax mo ngi nekk ben waaw kessel euh japp na né li ñu cërlon ci waxtu légui mu jeex waye bëgg na bala ñoy euh, tecc émission bi ba ngay wax sa dernier mot nga wax ma li la gën a neex ci liggéey bi ba nga dugg ci. c'est que mécanique ma nekk xale sama papa dafa noonu laaj ku nekk soo màggee loo bëgg a def man mécanique rek laa ko mos di wax màggee mécanicien laa bëgg a nekk moo tax bi ma si ñëwee yàlla mooy ma si ma am sens dama ko bëgg loolu dafa nekk si man dama koo bëgg waaw loolu tax ba man ni moom ma indi si mécanique. lan nga si mosoo dund lu la métti. waaw mos naa si dund lu ma métti parce que ay jamono dem naa nekk si gaar ay jamono 2009. ma jékki-jékki bàyyi mécanique dem di langi camion mm-hmm. mais dama doon dem yenn saa yi nekk si oto yi ba si yàgg sama xol bi day futt mm-hmm. parce que mécanique bi moom mooy moom laay joob sama xol di sedd daal mm-hmm. après maa ngi doon dawal nii mais après dem naa fi dawal si damay dawal sax mais damay mer moo science mécanique sama xol lay jeex te benn jour ma yeew rek tey dawal moom bàyyi naa ma delluwaat garage euh, tey boo amoon moo boo xam ne bëgg nga koo wax wala nga am loo bëgg a sànni moo xam da ngay gërëm seen waa kër mbaa waa garaas bi wala ñi nga xam ne yàgg nañ laa jàppale euh, loo leen di wax waaw man kay maa ngi sant ñëpp dëgg yàlla sant samay patron bu baax fa ma jaar yëpp mosuma jaar si garage bañ yëkkati ne ma dàq ma yooyu noonu mm. fu mu mos a nekk mu fa jógee waa nga Souleymane kaay liggéey ma dem sama yoon fii ma nekk tamit Kër Massar maa ngi sant bu baax parce que garage yi ma fi ne jaar fii yëpp ba si garage bi amu fi noonu ñëpp damay kaf ak ñoom di réer loolu dafa neex sama gaal yi tamit maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp dafa dëgg yàlla ay ci mu ngi noonu Kifne TV la woon ñu ñëw tey fii di waxtaan ñi nga xam ne ñooy mécanique nee naa la ñuy ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu ay borom jom lañu Wolof da daan wax naan boo sëggee sa tool ba siggi boo ne nii loo ca wis rek sa dërëm lay doon waaye dërëm bu génnul gaal des ca borom xol ya day tooy nee naa li nga liggéey boo koy joxe day neex ci sa xol waaye li nga liggéeyul boo koy joxee doo xam na muy demee dañuy ñaanal ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi waaye di leen ñaax ñu dem wuti liggéey ndax lu dul liggéey wóorul nit ki lépp loo nekk lu dul liggéey adduna du neex a neex a neex ba nga am jabar ba mën a doxal na mu waree lu muy yàgg-yàgg di nga dem ba benn instant su ma yëgoon euh, dañuy gërëm ñi nga xam ne ñoo ngi taxaw fi yëpp ci garage bi di gërëm waa garage bi gis nañ ni ñu teeroo garage yëpp moom bu ñu meloon ni garage bi saa bu ma xëy dama dem tourner émission jox nañ ma ndox jox ma café ñooñal ma ginaar ba muy fiqu naan nii li daal na fi sax garage bi lii yàlla na fi sax ginaar gi fiqu naan nii musuma ko gis gis naa ginaar yi def ni waaye ginaar nii moom manqué doo gis waaw tout cas daal dañ leen di ñaanal ah di leen gërëm di la jaajëfal ci yaatal bi ni nga nangoo yaatal ko bokk ak ñun li nga xam ne moo di seen émission yoonu ndaw di jaajëfal ñëpp ameen tax na ñoo ngi leen di jaajëfal yéen bu baax a baax mo xam suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi bitim xew di ñaaxaat ndaw ñi di ñaaxaat suñu papa yi di ñaaxaat suñu yaay yi di ñaaxaat suñu mag ñi ndax dañ naan mag mooy mottali waaye ndaw mooy daw wuti di ñaanal réew mi jàmm ji fi nekk yàlla fulal ñu ko kilifa réew mi ñu koy wowaat mu gersuwaat ndaw ñi gersuwaat ñi nga xam ne ñooy mécanique ñi parce que ñi ay jàmbaar lañu ki mën a dugg ci ron oto mbaa nga jël ay fil mu leer na la lii bu ko courant doxul courant ci biir mu man ko fo te mas ko bam mu kong mu man ko jox jangaro bu ne mu meuna wad ci kaw mu koy muñ ay gis ci ay dañuy defar lu tok tokeri lu graw duñ am ku len ni ñi war nañu meuna am bayal bo xamne état da koy jël tabaxal len ko ñu koy fay chaque wer ba muy mat parce que yeneen rew yi lu am suñ doole bu fa matul waye dañuy wax ne daw ci ka ami ba ngay ami tank ñi ne ram ci ba say om di meuna a kon nag dañuy ñaaxaat ki nga xam ne moo di bërëb borom réew mi muy Macky Sall gersuwaatal ndawi réew mi gert gersuwaatal ndaw réew mi ndax ñi ñooy Sénégal ay ca gars yi dañ leen di jox euh, euh, Hervé incha allah ci semaine prochaine li mooy suñu première émission di jaajëfal comme ni ma koy waxee saa su nekk suñu numéro mu ngi noonu ci baar bi yéen ñi nga xam ne yéen ay ndaw bëgg ñu jël leen fësal leen ak ci liggéey bu ngeen man di nekk yaa xam dangay jaay bëgguñu ñu siwal say produit ba mu saawan baawaan suñu numéro yaa ngi noonu woy leen di abonné di partager suñu vidéo di leen wax ne ak Kifne TV nii lay demee saa su nekk mbokk yi jërë ngeen jëf. billaay topp ba ngawlu ñaaw la bakkan dañu koy teel